daje mbokkoo la almuwaqa la su ma nee daje mbokkoo mooy un peu ñu ñëw defaat bilan wu fi toll mais jëlaat aussi départ ci fi ñuy dooree pour mën a jëm ci kanam mbalit sànq am nañu ko junj du ñu wax set sànq tant que changé wuñ comportement yi te Sénégal nag dafa am keroog lu may yem aéroport bi may jógee yaakaar naa Sharm el Cheikh ma ci benn chinois bu tux rek sànni mais bon, mais gendarmes bu am fulla da ko foral bu ko def ko Sénégalais yi mooy ku ñun ñu vecteurs yi nga la mauvaise habitude mais ñun ñu nekk vecteurs yi nga corriger euh, l'attitude bi nga xam bu bi rek que institution la ñu parce que bu institution de la république la société dès 2022 boole na pek li fi jaar yëpp tey aman Sénégal Veolia nga jël yépp yi nga xamante ni jaaroon na seeni personnel suñu ay njaboot lañ te nangu nañu nangu gi ko nangu nag mooy xool ancien yooyu li ñu mérité ak li nga xam nekk nañ di ko def ndax waxtaan naa ci directeur bu bari ay effort yu bari def nañ ko mais mbalit la kenn mënul amal euh, euh, wërsëg wu ko daj ndax euh, saaku la boo xam ni da ngay remplir te du gaaw a fees te mbër la moo xam aussi chaque jour bu xëyee danaan jëm ci sa kaw jàkkaarloog yow Euh, euh, fi nga xam ni falaay daaneele rek mooy tey jii yéene yi nga xam ne am nañ ko pour def ko ci liggéey boobu expansion des infrastructures tey jii le développement et la modernisation des infrastructures de la gestion des déchets mu jaar ci secteur bu am solo bu yàggul soxna Babu Banque mondiale mi ngi may woo ci ñu gisee waxtaanat ci projet bu mel ni Promojet mais sama frère Cheikh Omar que je salue au passage le directeur général wax na ko bras technique le mon projet ndax Nous lañ toog ñun xalaat ko bind ko avec ñom Thierry bu banque mondiale def ci théorie bu mat seuk dem défendre ko siège banque mondiale sous les auspices du directeur Ibrahima ba ñu accordé ñu financement bi ci avec le PGDSU donc du du gan ci ñun mais expansion infrastructure dafa wara a gaaw ci Sénégal dañ ko innovation technologique tey bo demee dëkk bu melni Corée nga xamni ni jàngi ci partie asiatique bobu lu mat 50 modules sur le comprehensive waste management du euh, ministère des innovations et des technologies la donc innovation technologique le mel développé le secteur informatique bi l'application application setal 2.0 point a été partenariat public privé tey une réunion conseil d'administration administration bi rek vraiment partenaire yi ministère de l'Industrie, trésor public Wa, présidence de la ministère de la santé donc loi euh, bi nga le secteur du partenariat public privé éducation et sensibilisation ci ci création d'emplois, durabilité environnementale promotion de l'économie circulaire recherche et développement notre rapport avec les milieux des laboratoires d'université loolu dafa nekk loo xam ni université Ibrahim Niass Sinsaloum. Saloum boo fa que ni wàllu mbay bio développement de l'agriculture ak biogaz ak dafa xam c'est au cœur de leur programme de maquette de l'enseignement parce que j'ai eu à donner toujours un cours au niveau du département environnement et développement durable sur la typologie et la valorisation des déchets solides et assimilés. Amélioration de la collecte sélective. Sénégal li tax mënaguñoo jariñoo mbalit mooy boobu ba léegi sunu mbalit jaxase rek lañ ci xam verre ya toj ak yépp la ñuy boole te tant que ñu ngi continuer di jaxase mbalit mi suñ njariñam du mën a bari loolu am na loo xam ni ci euh, déchets euh, euh, dérivés yi nga xam ni pétrole don Cheikh Niane mi ngi ci conseil du tout à l'heure le secrétaire général du ministère de l'énergie bu frère Biram Soleil Diop je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y a beaucoup de partenariats qui pourront se développer dans ce secteur fi may c'est la réduction des déchets agroalimentaires avec des secteurs comme l'ADPM, e avec toutes les entreprises à l'agroalimentaire il y a une nañ fa formation jot naa cee ak Marie Rose Faye une na yàlla dëgëral ko moom itam moo remplacé bu yàggu Idrissa Diabira bu mujj bi may daane la mooy optimisation des centres de traitement ak gestion des déchets spéciaux Sénégal dafa bari ay mbalit yoo xam ni euh, daanaka jublooguñ ci muy lu mel ni radioactif euh, traitement cancer yi mi ngi fi ak yeneen yi ci biir domaine yooyu les déchets de l'industrie yooyu yëpp war nañ cee gën a jublu ci tàggat ko donc mesdames mesdemoiselles messieurs c'est vraiment là euh, le contenu de mon discours que j'aimerais bien partager avec vous parce que ça a été quand même une ébauche de beaucoup d'axes stratégiques sur lesquels notre société, la Sonangène, s'assimilera à, le faire. Euh, très sincèrement, je remercie remercier tous ñu fi teew muy xarit mais aussi tàllal loxo itam suñu euh, mbokk yi nga xam ñu ngi ci gouvernement bi ku mel ni madame Maymouna Dieye ñu ngi may woo ci suba moom itam ñu dénk ko ministère bu am solo muy famille famille ak les solidarités ak les solidarités moom ci biir ministère am mi ngi ci am PUDC PUMA programme yooyu yëpp nga xam ne dañuy laalaale mbalit moom itam ñu ngi koy tàllal loxo ndax mooy sama maire commune daagee boo gis nañ ni jàppal diw mais moom itam itam tey jàpp nañ ni war na noo mën a liggéeyee loolu bari en tout cas ubbi nañ suñu xol ubbi nañ suñu xel ubbi nañ suñuy loxo jëmale ci ñëpp ñu nga xam ni ay ñooñu Sénégal lañ surtout ci direction yeneen yëpp d'autant plus que bu yàggul taxawal nañu le groupe des DG yi nga xam ñu ngi liggéeyandoo démb DG BND ñu may laaj lan la mën a def ci bisu setal bi di ñëw ak yeneen DG yoo xam pare nañ pour accompagner initiative bi ak à l'international euh, lii moo nekkoon kàddu yu awa di gërëm di sant di euh, vraiment mbég ci daje ak yéen ci bis bi tey ah ñu ne aussi di di dajawaat di dajawaat di dajawaat pour wax Sénégal pour wax cet gi pour wax luy defar réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah